gis nga bu ñu demee ci xeex ba amatuñu ñu nekk xam ne fi ñu nekk ni ñu ngi ci impasse. Mm-hmm. bu ñu nekkee ci impasse ay gentleman ñooy ñooy ñooy discuter maintenant ah. du ay dialogue euh, kii am intérêt mais ay gentleman ñooy xool ni nañu xool intérêt Sénégal. Ah, l' intérêt supérieur de la nation. l' intérêt supérieur de la nation mooy ku ci nekk il faut mu am lu mu bàyyi le président Macky Sall il faut mu am lu mu bàyyi man gëm naa ni président Macky la première chose bi nga xamante ne war na koo def Euh, xool dans son gouvernement ni muy rass ni muy rassurer l'opposition pas mu jël ay opposants mais waa société civile créé nañu benn mouvement je pense bu tudd aar suñu élection mm -hmm. y a des têtes comme ay Elimane bon des têtes yoo xamante ni xëy na voilà euh, am na lu ñu mën a indi président Macky Sall toog ak ñoom ñooñu am nañu crédibilité wax ak Macky Sall am nañ crédibilité wax ak opposition bi. c'est il faut mu am intermédiaire il faut mu am koo xamante ne tampon tampon boo xamante ni mooy facilité dootul léegi mag mag président Macky Sall mooy woote. tampon boobu am na déjà ku ci mel ne Alioune Tine ak Atepa. wala nga leen disqualifié waaw c'est que je pense que ñoom dañoo commencé woon benn affaire mais je pense que c'est le président moo leen disqualifié. mais ah. jusqu'à présent <clears throat> eh, yëf yi day day day dafa gaaw. Mm-hmm. même ñoom Alioune Tine ñoom ñëpp. ils mais non mu am. comme am na aar suñu élection je pense que ci lañ bokk. Mhm. ñooñu mën nañu jouer tampon opposition am lu mu bàyyi pouvoir am lu mu bàyyi mais il faut que ñu trouver un consensus gis nga fi ñu toll nii nekk fii di jéem a guerrier guerrier naan élection day am 2 avril mbëkk miir yi périer. Mhm. élection doo am fii ak le avril loolu mooy dëgg. Mhm. maintenant vide juridique ñu ñu ñu bëgg fee bàyyi juriste yi depuis 2011 ñu téye ñu ci ay euh, xaw ma nu ñu koy wax interprétation yu dul jeex non na homme politique waxtaan. opposition am na lu mu mën a bàyyi xëy na mooy génn ci date 2 avril bi mais le président tey jii nii bu ko doon bàyyi loo lan la war a mën a doon. mais pour man le président euh, l'organisation des élections tout cela. ah fexe ba loolu tegu ci loxo société civile bi dina rassurer. autorité bu naat. voilà dina rassurer euh, xëy na euh, opposition bi deuxièmement quatre-vingt-dix jours francs yi à partir de du moment fi ñu toll nii. Mm-hmm. conseil constitutionnel ay sage la ñu fexe ba ñu am loolu. nee na il pour man li li rafet mooy que que ñu am président bu ñu dépassé 3 mars bi mooy 30 jours avant 2 avril duñ ko amati. mënatul nekk waaw comme mënatul nekk. mais man li ma bëgg mooy candidat yi ñu am ñu battre campagne ñu organiser élection normalement. Mm-hmm. de bu ñu jëlee date 2 juin 9 juin 16 juin 24 23 juin jour bu ñu jël ci mois de juin jour bu ñu mën a jël. ak lu mën a xew ñooñu bañ a voté ñeneen ñu voté mais au moins ñu xam ni Sénégal toloon nañu ci moment bu difficile. Mm-hmm. les hommes politiques wax nañu pour l'intérêt supérieur de la nation trouver nañu un consensus permettre nañu président de la République donte def nañu ay man man je me dis ah il faut que quelles que soient ces erreurs quelles que ñu ñu ñu driver moment boobu. Mm-hmm. ba ñu am intelligemment. intelligemment parce que pour man après fëgg dañu yuuxu fii. férié du réglé wul problème bi. parce que la dernière fois bi mu wax mel na sax ku mer ne à partir du avril moom voilà day bàyyi lépp dem te foofu aussi euh, moment bu xaw a war la parce que bu le bu jotee euh, mandat jeex na officiellement te amuñu beneen président bu demee ce qui va arriver mën na mën na a ci Sénégal. non président Macky temps yii nag <laughs> ko a dama ko dama ko ñëwantal bëgguma hmm. bëgguma en fait jarul xëy na ton boobu ko moom la tàmmoon di waxee. waaw mais xëy na ton boobu nekkatul à l'ordre du jour. mais li nekk à l'ordre du jour mooy ñu manager yoon fi ñu jëm c'est li li des fii nii. Mhm. dafa demander beaucoup d'intelligence. après les questions xuloo yu demee noonu yu ñàkk fayda yooyu xuloo nañ ko gérer après mais gis nga bu ñu demee ba nekk ci impasse dañu am benn grandeur d'esprit ñu taxaw président de la république xëy na bu bu même bu ko fii parce que conseil constitutionnel moo war a assurer intérim bi. Mhm. bu ko moom bu président Macky Sall bu ko dara jarul amul honneur bu gën a rëy ñu teg ko fi ba keroog le 2 juin. la situation doonul ki gën maanaam c'est un moindre mal en fait parce que il est déjà aux affaires. man moo ma taneel man moom moo ma taneel <laughs> président assemblée nationale. ndax lan maa saf na xorom mu woo gendarmerie. une deux mën a suspend la séance. su fekkee kooku boo ko joxee réew si <laughs> ci deux mois trois mois sama xel dalul ci moom en toute honnêteté je n'ai rien contre lui mais je pense que day mel ni pour man ah li ma jàpp boog nit mooy boo defee ay erreur nit ñi xaw a bëgg la permettre nga nga rectifier wu mooy nga fexe ba li ci topp lépp parce que président Macky Sall amatul lu ko mën a lu ko mën a euh, xawma la honoré lu def lu rafet def lu